waat bu baax a baax di leen gërëm di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu sunu boroom ak kattanam di sant yàlla bu baax mi ñu may wér ak kattan ak fekkeek mën a teew ndaxte réew mi nag toll na foo xam ne ku fekke wala nga teew war nga sant yàlla ndaxte li fi xew la kenn xamul ginnaaw ba nuyoo El Hadji juuf ab lay Top solution sa njogu son bu ma jigéen suka Aïcha Euh, ñëpp ñu ngi leen di nuyu Assane Mesere ak euh, ñoom Ousmane ak euh, Kandji ak ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ba ci Modou ah ñu ngi nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm di leen ñaan ñu fekkee lu tax fekkee googule ñu war di ci sant mooy li xew ci réew mi ndaxte munoo bis wala semaine boo doxul gisoo wala nga dégg koo xam ñu ne jàpp nañ ko ak lan moo waral ñu jàpp ko ak lan moo waral ñu teg ko loxo. bu dee ni ñi ñuy jàpp da ngay dem ba ci sa sa xel nga jàpp ni ma def ak ñàkk def yëpp mën nañ ma jàpp maanaam dugal nañu ci psychose mais aussi judiciarisation boo xam ne maanaam la république des juges maanaam ab àttekat mën na taxaw fale woolu la nga ñëw toog amoo benn sens pour ñibbiwaat alors que dañ justice bi mën na def liggéeyam waaye ki ñu woo te kenn àtteegu ko dafa am. la présomption d'innocence maanaam li nga koy jiiñ fekk ate àttewuñ ko ba daan ko kenn mënul nangu ni loolu la def mais léegi da ngay gis ni woo nañu nit rek mooy dafa war a jàll même bu jàllul day am contrôle judiciaire retour de parquet yu bari mandat de dépôt yi te des fois doo comprendre ñii ñu naan leen trouble à l'ordre public ñii ñu la manifestation non autorisée ñii ñu ne laan mbiri terroriste ak ñoomin seen lu ne nga dugg ci te des fois nga dégg ñu tudd ko ci nit koo xam ne danga naan kii fan la doonee terroriste ak lan mooy terroriste parce que des fois y a yoo xam ne dangay ngay jàpp ni ñii ay innocent lan pour être honnête juste nag sar nañ njort wala mu gis ni kii kat mi ngi jalgati yoon mu woo ko mais li ci doy waar mooy dañ lay yóbbu instruction ibil la information judiciaire maanaam jël denc la rek du la te pourtant du nguuru Macky sàll moo fi njëkkee dundu nañ fi Abdou Diouf dundu fi Laye Wade jàppe danaam na yóbbu ci kanamu procureur wala juge daan na mais nag da la daan yóbbu flagrant délit àtte la nga génn dem sa yoon même bu la tegee daan nga tëdd ko dem mais bari nag ñu ñi ci kaso bi ñoo xam ne ñoom xamuñu lan moo leen fa téye mais xamuñu kañ la leen di àtte aussi léegi ñu dem ba demande de liberté provisoire. boo xam ne bu ko nit mu a ñaan ndaxte bari na ci ñoo xam ne ñu ngi ci nguurug Macky Sall gii ba ci ñey siège ci conseil des ministres am na ñoo xam ne ci liberté provisoire lañ toog bu Fall li ak liñ ko jiiñ ci mbiri xaalis bu setul lan la gënee ñi ci kaso bi ba moom mu sañ a dem këram di fanaan di naan ataay di doxi soxlaam di dem di dikk te pourtant liñ ko jiiñ rëy na de waxuma moo ko def ndax kenn atteegu ko ni moo ko def mais fu dinaa Seydina Fall Boughazelli mun a amee lii di liberté provisoire mais Bassirou Diomaye war ko am mais Nick Doff war ko am Abdou Karim Gueye war ko am kii di euh, Cheikh Omar Diagne war ko am keneen ak keneen war ko am ba ci Oustaz Assane bi may laaj Oustaz yi ñu jug jàppale ko parce que nag bu journaliste daanoo ay journaliste dina jug. bu ab politicien daanu ay politicien dinañ jug bu dee ni keneen ak keneen ay police ñeneen dina jug mais ab oustaz dugg déggoo benn oustaz bi ci wax ne y'a problème kon il faut que ñu woyofal yolomal ñi ñuy jàpp bu dee da leen jàpp loo xam ne flagrant délit la lu ñu bind wala lu ñu wax parce que oustaz Assane Seck li mu wax mais am na ñuy wax le contraire ba pare dara fekku leen ci parce que bu ne président bu Sonko nekkul candidat lii xew mais am na ku ne bu Macky Sall nekkul candidat lii xew pourquoi kooku woowuñu ko pourquoi Aliou Dembourou Sow woowuñu ko pour quoi woowuñu kii di euh, Amadou kamara pour pourtant waxuñu fi lu kenn waxul te dafa bari ñi nekk ci kaso bi ñoo xam ne ci anam goog lañ ci nekkee maanaam téye leen fa rek denc leen fa nëbb leen fa amatuñu benn ak ak benn yelleef mais loolu aussi il faut mu doon loo xam ne lu ñu war a waxtaanee la mais aussi lu yoon war a jug la lu tax ma njëkkee foofu dinaa dikk ci procès aji saar ak Ousmane Sonko dinaa dikk ci Ousmane Sonko ma demoon Ziguinchor ak ñi ci xew yépp parce que man mi di wax ak yéen man damaa gëm justice parce que bu ma nit tooñoon wala ma teg ma naka dëgg dama jàpp ni yoon moo ñu war a àtte kon gëm yoon moo tax ma toog fii di wax parce que bu yoon amul woon ci réew mi. mën na am sañ wu wax jii duñ ko am kon ñi ci kaso bi danoo am àq am yelleef ñu dégg ay naafeq ci réew mi bu nu wooyee usmaan Sonko mu dem ca Ziguinchor ñu naan la dafa war a wuy ji dafa war a respecté yoon fii kun fi war da nga war a wuy moom ñëpp ñoo bokk àq ak yelleef waaw daa war a wuy ji daa war a wuy ji buñ ko wooyee daa war a dem wax ngeen dëgg. waaye yéen ñi wax loolu bi ñuy yi ak ak yelleef yi doomi aadama ci Sénégal ak ñiy nekk ci kaso bi mandat de dépôt systématique mi forum du justiciable di keneen ak keneen ñoom Babacar Ba fan ngeen nekkoon parce que yéen nag bu dee ni justiciable yi ñoo leen tax a jóg mais ñi ci kaso bi yow Babacar Ba da nga ci war a wax doomu jàmbur ñuy tëj ci kaso parce que man dama bokk ci ñi la xam. ba ngay doxee tànku neen di dem ci télé rajo yi fi la ñu fekk tey jii mën nañ wax ni jamono neex na dem nga fi of nag mais du tee la nga meloon démm nga mel ko ren mais lan moo changé ci diggante bi ba nga sañ wax li te sañoo wax leneen bi ñuy jël Ousmane Sonko di ko diri di yóbbu di ko duma ci yoon bi foo nekkoon bi ñuy jël appel yi maanaam ci mbir mbay may ñaa di ko atte di ko patam patamee di salfaañi ay àq ak ay yelleefam fan nga nekkoon bi ñuy rey quatorze personnes ci réew mi ba tey ji kenn attewu leen ñu teg ci yeneen ñett léegi mat ñaar fukk fan nga nekkoon lan nga wax ci xale yi ci kaso bi ñu tëj leen fa te ñuy bénéficier wu présomption d'innocence yow Babacar Ba bu forum du justiciable foo nekkoon maanaam boo waxee lii da ngay wax la ca des loolu lii moo tax sénégalais yi ñu bari mënuñu gëm yenn nit yi parce que dañuy jël sa waxi daaw ak sa waxi ren gam-gamle ko mais ñaari wax yooyu di wute wute goo xam ne moo tax kii di ngudo mbub tegaat ko ci àndam mais di jaar ko ci àndam parce que bu ne xaddgal lay na rek mu jug naan non diw dafa war a wuy ji diw dafa war a waaw daa war a wuy ji mais nit même bu waree def devoir am mais dafa am ay droit dafa am ay droit yoo xam ne nit ki da am même ki rey nit ki sàcc alalul jàmbur bi ñuy sàcc xaalisu corona bi Babacar Ba foo nekkoon te pourtant am na ñun ci tudd ci wàllu yoon ci rapport Cour des comptes mbiri Fulbert Sambou ak Didier Badji Babacar Ba loo ci wax ba ci keneen ak keneen mais quand il s'agit de Sonko nga gis ñu ñëw bëgg jàpp ni ñoom danoo xam yoon ñoom danoo jub danoo maandu pourtant ni ni doxalee du maandute parce que réew mi mënoo wax lii di bàyyi la des man dama jàpp ni Ousmane Sonko daa war a gëm yoon man loolu laa gëm parce que yoon tey bu ko gëmul tey dina ko gëm ëllëg ndaxte candidature am bii mu bëgg ku ko daganal Ousmane bu ko yóbbu fan la ko yóbbu du ci conseil constitutionnel conseil constitutionnel kan moo fa nekk yoon kon mënoo bañal fii yoon nangul fii yoon mais kon Ousmane nañ ko assurer sa sécurité bàyyi xale yi ko war a topp topp ko parce que nag loolu ñu koy bañal naan bu waree dem xale yi koy dar ak yooyu mais Macky Sall bi muy wuy ji ci mbiri xaalis ci jamonoy Abdoulaye Wade bàkk boobu fi la juddoo boo ko laalee boo ko laalee dina la dóor maa ngi fàttaliku Moustapha Cissé Lo mais ci Macky Sall la wax jooju juddoo ba tey jii ñu def ko ak bàkk kii di Idrissa Seck biñ ko fi woo en 2004 fi la ñu fekk mbooloo ma ko daroon mbooloo kenn xamul mu toll pourtant boobu président Macky Sall mi mi ngi woon ci nguuru Laye Wade est-ce que Laye Wade dafa noonu Idrissa Seck du ko fi doxee di ko fi waxee ses kan moo ko moom état Idrissa Seck bi muy taxaw fii si ses boobu man fa la ma fekk 2004 fekkul may def média de mais am na lu ñu ci dund parce que information yàgg nañoo ñoo intéressé même bu nekkee ay xale mais suñu bàyyi daan nañ dund politique bëgg ko di ko suivre ñu am lu ñu ci xam di ko fekke pourtant li ñu doon jëñ Idrissa Seck lu dis gann la Idrissa Seck bu mënoon wax ni jamono jooju mooy ki gënoon a puissance ci arène politique bu Sénégal à part Laye Wade pour akam ak yelleefam Abdoulaye Wade felu ci dara da ko bàyyi mu ànd ak mbooloom dem wuy ji yoon kii di sa Seck ba muy wootee si ses maa ngi fàttaliku jour boobu la professeur Vincent Sankharé mais moo yër moo jël récépissé jox ko sa Seck pour mu demee ko élection Idrissa Seck nag tuddatu ko fenn mais boobu ndaje moomu mu ko gën a rëy ci Ndakaaru amul booba maa nga taxaw ñoom Jibril Saw bu parcelle bii ña nga fa woon est-ce que Abdoulaye Wade dafa na woon ndaje moom du am loolu da ñàkk wuy jéeg Ousmane Sonko il faut ñu nangu ko mooy boo ree wuy ji ñu barricade këram wër ko ndomba yóbbu ko résidence surveillée ci loo xam ne juge waxu ko ci yoon wi ñu koy fitnaal ak di ko xorñoñal bu waree ñibbi ñuy toj ay vitram Ousmane Sonko maanaam bu waree dem procès balaa muy egg procès maanaam énergie bi muy bàyyi ci yoon wi day bari tellement que xëy këram sax moo ko gën parce que benn moom du mucc ay nitam du nu mucc bu war dem kaso yaramam du ko fekk ay nitam duñ ko fekk ñii dina leen jàpp ñi leen juma mais ay tey réew mi réew mi lépp dina gàllankooru kon kooku dafa mérité ñu respecté ko jox ko ay àq ay yelleefam buñ ko ko joxee ba mu mat nag bu wuy ji jotee mu dem wuy ji mais nin bëggee yóbbu Ousmane Sonko usure ci mbiri Mame Mbaye Niang xool nin gaawantoo affaire bi mais ci mbiri Adji Sarr ak gaawantu bi taf taf ñu ne ko ñëwal quatre cent pages ñëwal toog àtte ko une semaine ci Mame Mbaye semaine bu si tekk ñu ni ko kaay taxaw ci mbiri Adji Sarr mais loolu ci nit ci nit rek dafa xaw a metti mais aussi nekk une torture psychologique ci wàllu xel parce que nit ki loo ko bañ bañ dee ko bàyyi mu noyyi ñun ñuy faral di def sport di football ak yooyu loo mën mën adversaire lu lay wax naa la adversaire bi respecté ko parce que boo ko respecté wul mën nga ko yóbbu ci dimension boo xam ne bu jugee dul gën te loolu moo indi la jur sa Ziguinchor la am ca Ziguinchor li am ci ndakaaru te loolu pour man ñi ko def ñëpp mooy ñi gëmal président Macky Sall di ko nax naan ko xoolal nit ko def ci mbiri Mame Mbaye Niang neutraliser nañ ko kon ci mbiri Adji Sarr mbir mi day nooy fekk ñaari du benn parce que mbiri ah, Mame Mbaye Niang affaire politique la mais fee ni Mame Mbaye Niang woon honneur am ba jàpp ni moom da nga ko war a setal mais Ousmane Sonko mais honneur fii la gën a rëy ki ñu jiñ ci borom kër ñaari soxna doon ab leader politique am ay ambition réew mi ñu bari gëm ko kooku ñu xëy na ko yaa yàkkataan xale bu jigéen boo xam ne ñaar fukki atam la mu teg bariwul ab certificat médical ñëw weddi ko ay audio ñëw weddi ko rapport d'enquête bi ñu doon wax kenn xamul rapport ba la ca ne Ousmane ko moo ne dañ kaa falsifié. bis bi ñu ko njëkkee di woo mii dem ca yoon wa la mu malgré immunité parlementaire am nañ ko bu yóbbu ko mais bi ñu ko bi koy yóbbu ci yoon wi lan moo xew ci yoon wi mais gazé ko gazé ay militant ak ay ñii di journalistes yi ñu dem ba ci kanamu juge ba ñu noon Adji Sarr doon filmer xaw ma yooyu lan doon wax pourtant dara fekk ko ci. Adji Sarr am kàttan goo xam ne fi muy wër ay takk der di ko topp ñu koy garder comme di ko garder koo xam ne kilifa la jox ko gëdd ak ak yelleef mu nekk ci internet bi ñamax ñamaxi di wii ndigg ak lu ne mu dugg ci Adji Sarr yabewul noonu usmaan Sonko ñemewul noonu usmaan Sonko Adji Sarr xamewul noonu Ousmane Sonko mais wala fi ne ku ñeme da laa dee kon kan moo nekk ci ginnaawam kan moo koy dooleel. dossier boobu ñu ne képp ku ci laaloon ana pré ana préfet bu doon gazé nit ñi fi mars deux mille vingt et un dañ ko defal promotion ñu ne euh, euh, ana procureur ba yoroon mbir ma Serigne Bassirou Gueye mu nga of nag ñu ne ana Moussa Fall ñu ne général gendarmerie la ñu ne ana keneen ak keneen di lim maanaam bu dee lim képp ku ci laaloon tey jii mais dooleel na la mais ñooñ ñuy dooleel ñooñ lan moo waral ñu leen di dooleel. lan moo waral ñu leen di jox kàttan da leen doon récompenser am déet ñun xamuñu kon il faut que xelu Ousmane Sonko di tey tey suba maa ngi dégg ñu ne juge Hippolyte Ndeye Korog wax naa ko fii ci Taku Show bi waroon na àtte mbir mi dindi nan ko indi nañ beneen juge xaw ma information bu wér la ak bu wéru mais je l'ai vu sur le net mooy Moustapha Fall moo ko remplacé te pourtant li ñu doon wax dëgg la parce que Hippolyte Ndeye bu dee dafa bokk ak ministre bi sant ndey ci nguurug Macky Sall ba pare nekk waa Ziguinchor. mais foofu conflit d'intérêt day dugg kon ñun waxuñu pour par parloo mais dañuy wax loo xam ne même bu ko xel nangoo ngor da koy bañ parce que mënu ma di wujjee yow ci politique sama di ma àtte kon Ousmane Sonko il faut que ñu nangul ko li muy bañ bu doon wuy jéem day mel ne wuy ji bu Adji Sarr wala bu Mame Mbaye Niang wuy ji mun na yomb ci moom ndax sa procès bi liñ ci gëm yépp mooy bu dee ni amul lu ñu nëbb ab montagne glace la heure bu ñu xëy mi ngi sey te jamono dem na ba weddi ko parce que wala fi dañ ne lu teew feeñ dafa yàggul te yàgg bawul dara mais boobaak tey li ñu procès bi di wan mooy wane ni procès bi li ci ne yëpp mooy ay complot feeñ na ci wala ay fen wala ay kàcc wala leneen ak leneen xamuñu mais ba jusqu'à présent ki kan la leen doon présenté benn aji saar bu ëmb wasinagul ba tey jii correcteur bi naan de gis nañ fu ko ëmb xanaa Ndeye Khady Ndiaye est-ce que Ndeye Khady Ndiaye mi waru woon tax procès bi ñu pousse ko ba mu mucc jot ba kanam mais condition yi nu wooyee Ndeye Khady Ndiaye est-ce que condition yi war na ko wooyee jigéen mais ni Adji Sarr amee ak ak yelleef ba nguur gi fonkee ko nii ak kilifa yi mais nañ ko fokkee Ndeye Khady Ndiaye jigéen la tollu diggante mais aussi am ay ak ak ay yelleef yu nu war a sàmm nañ ko mën a sàmmalee Ousmane ko sàmmal ko Adji Sarr mais nañ ko sàmmal Ndeye Khady Ndiaye ñu Sidi Mouhamed mbay min doon tudd ci mbir mi mais ñu dem ba xale boobu ñu ne seq naag benn booy bu sant ngeer parce que booy bu maîtriser wu ko ay clé USB bi jar 10 million parce que yoroon nañ ay audio wala ay vidéo ceci ou cela maanaam yooyu yëpp day dem ba nit ñi gëm ni liñ ci doon njort ak di ko gis mais li mu wane mooy complot wala leneen ak leneen kon est-ce que mbir mi waroon na egg fii ma dégg ku mel ne ma Madiambal Diagne mu ciy wax man ma jambal mooy nit koo xam ne mosuma sax bëgg di chronique ba di ko tudd parce que man damay am benn cër ci magi journaliste yi parce que métier ki ci jiitu danga koy jàppee sëriñ mais da am loo xam ne sagalul sagalul métier journalisme te ñun nag danoo bëggoon bu ñuy xool ci ñoom mën a rey ci ñoom mais yow boo taxawee nga ni euh, juge Keita bi njëkk a àtte mbiri Mame ñaa ak Sonko da manaam maanaam daal sympathisant Pastef ak yooyu. munoo yow sax munoo dëggal ci kanam Papa nga njaay ni fala far mais yaa ngi wax naan sympathisant wala yooyu ci ay commentaire wala ci yokk gis mais Omar Maham Diallo mii ñu ngi ko doon mais am na ñu ne am na benn li xaw man liiruma ko ah yàlla tax may wax ni daal safoowul ak Ousmane Sonko ak yooyu kërëb kërëb pourtant moom lañ fi fal doyen des juges mu sëgg ci dossier bi ba renvoyé ko chambre criminelle moom la pour est-ce que Madiambal yow da nga bind ni Omar xam war woon dugg ci dossier boobu pourtant da nga cee noppi ni nga waxee ci juge Keita te ñëpp bari jàpp na du yoon parce que ab kii Pape Ndiaye ci yoon rek la wax ak doxalinam ba tey ji mi ngi ci kaso bi le 23 yàlla nañ ko bàyyi moom Pape Ndiaye tey jii Madiambal nga mën a wax ci juge ci lu toll noonu na ko defoon ci télé ko keneen. mais dara fekkul la ci yow ma jambal jaañ nga ni la xew sa jigéen sor Ousmane Sonko nekk gëm fa nekk ma jambal ay borom xel ngay waxal de déglu leen ma jambal jaañ dem seetaanu mu ko ba ma jeex mais li ma ci intéressé woon seetaan naa ko ma jambal dafa ne Sonko dafa daw mu ne moom xam na fu mu ne ki daw làqatu yow boo xamee fu mu ne te ñu ne takk der yi danoo bëgg a jëli Ousmane Sonko ci xibaar yi ñu joxe. ma Madiambal yow nga ànd nguur gi ñëpp xam ne xaritu Macky Sall nga te yow mii Madiambal boo sañoon ñu jàpp Ousmane Sonko mun naam am parce que da nga jàpp ni dafa làqatu nga xam fi mu ne mais ma Madiambal boo xamee fu mu ne gën a informé waa police ak waa gendarmerie bu dee dafa nekk Bignona wala mu nekk ci bois sacré bi ma Madiambal lu tax waxoo ko gars yi ñu dem jëli ko loolu gënoon yomb kon yow mi xam fi mu ne te waxoo ko ma Madiambal yow moom war na la woon na la loo seq ak Sonko da doon déggante moom moom déet. wala ma jàmbal daa am ñu nekk ci wat Ousmane Sonko di la informé te gëm naa ni jokkoo woo ca kenn kenn informé wu la ci maanaam wax sa xalaat nga doon def rek comme ni ko ñu bari di defee mais boo nee laqatu kenn gisu ko man xam naa fu mu ne déglu leen olof dafa laqatu waaye man kenn gisu ko dafa daw mais man xam naa fu mu ne ñun la fa la ne nga ni ci bois sacré wala ay bindoon ak ñoom seen koy waxal. des fois il faut que ñu bàyyi duñu nax di ñu jéem a dóor marteau duñu ñu jéem a teg yenn nii Ousmane bi muy ñëw di présenté wu démb ci kanamu ay militant ci kër la génne ci kër la génnee kon des fois il ne faut pas que ñuy manipuler bu ñu xëyee nag tey ji benn seex Yérim Seck génn Ousmane Sonko li muy wax moo bari li muy wax moo bari mais wala li muy wax moo la neexul ñun olof ay doomu yoolof lan maanaam nit ki li muy wax moo bari wala li muy wax moo la neexul ñaar yooyu dafa am des fois nga ni nit li muy wax dafa bari fekk li muy wax moo la neexul léegi nag noonu ñuy doxalee ci Ousmane Sonko tey jii ak acharnement bi ak singli bi mais loolu dina dem ba jàpp ci njortu nit ni ñii kat lin ma namal du jàmm parce li mu leen jaral yëpp man dama gis ni jëli Ousmane Sonko ak atte ko ci mbir Adji Sarr li mu jaral nguur gi yëpp pour man bu doon aji saar kase du leen ko jaral kon Ousmane Sonko bu njortee ni leneen moo ci ne wala leneen moo nekk ci ginnaaw mais loolu nan ko ko nangul kon il est temps que ñu dal léegi nag am ñu ne la comme Idrissa sa ah gënuñu ñu muus nga dégg benn Mame Mbaye Niang mun a noo fa mu nekkee danoo war a dem jëli ko Idrissa Seck ne bu doon man la dañuy dem na ko coppet jëli pour man ñooñ ñoo nax nguur gi ndaxte danoo nattu Ousmane songo ci balance wu Mame Mbaye Niang ko que balance boobu baaxul mbiri Adji Sarr c'est une question d'honneur c'est une question leneen la quoi mais Idrissa Seck mi génn non bu doon dañuy fekk ay fekk këram na ko coppet coow du jib bu ma jiite woon réew mi li xew du xew mais Idrissa Seck en 2004 bi la Laay Wade di jëli ku dis gën nga pourtant bi la lay Wade di jëli jafewul tëj la ci kaso bi xat dammul yemoog Ousmane Sonko usmaan Sonko du yow doo moom maanaam xeeb gi ñu xeeb Ousmane Sonko ba Ousmane ba Macky Sall bi wax du ko sax tudd turam loolu mooy seen problème wala fi nee na loo ragal da gaañ waaye mën nga xeeb xal mu lakk sa dàgga koo xam ne ci élection présidentielle bi mu njëkk dem day peese sept cent mille voix mu dem local ak législative def campagne ñu xool ni waa ji toll ci réew mi bu doon ab instrument de mesure dafa am nattukaay boo peesee Ousmane Sonko xam ne ku des gann la Ousmane Sonko du calpe bu ñuy def ci poos Ousmane Sonko du ab ay verre yu ñuy takk foo jëm jëmee ko fa du ay cerax yooyu sol fu la neex simi ko fa li may faral di wax même bu nekkoon un chef rebelle wala mu nekk un chef de guerre wala mu doon ennemi public numéro un war nañ ko respecté xamul tax mbooloo mi mu àndal mbooloo moom jarta xeeb kon buñ ko waree teg ci yoon comme sénégalais yëpp mais nan xam ne bu ñëpp yamee am ñu gedd seen cër mais nañ ko jëli comme nañ jëlee woon Ousmane Ngom parce que Ousmane Ngom ba nga koy jëli Europe lan lan wax man mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine mais est-ce que tubaab yi ñoo ñu ëpp mooy ëpp ñu kàttan foofu mais gis nga ku jéem a jëli Poutine am na yoo xam ne du xool lañ koy lijjantee mais xel xel kon il faut que ñu def attention il faut que ñu tey mais il faut que ñu jër cër Ousmane Sonko respecté ko te ci dossier bi bu dee dara nekk ci ngal la nanu dimbali lu amoon du amati mais li xew jamono yi ci réew mi pourtant Walfadjri wane wu ko TFM wane wu ko keneen ak wane wu ko mais jarta xeeb ni booy nekkee ci mbedd mi kenn àndu ci mais bu ko médias yi doon wax surtout les médias traditionnels wala les médias classiques mais dina tax état bi xam fa lay teg tànkam ak nan lay taxawoo mais aussi nan la ciy jàppee parce que les réseaux sociaux ils sont incontrôlés et incontrôlables mais lii jarta xeeb fañ jëm mardi il faut que ñu bàyyi ci xel Macky Sall bañ a déglu ñu naan ko waa ji du dara waa ji mën nañ dem na ko coppe dem jëli ko ni ko Idrissa Seck waxee Ousmane Sonko boo leen ko nattee seen bopp da ngeen di juum boo leen ko nattee seen bopp da ngeen di juum Sonko càppaaculi la Ousmane Sonko phénomène la waxuma moo fi gën nag ndaxte ñun lii ñu ne dañ ne sànq maa lay nettali. Idrissa Seck ba muy dem si ñun ñu nekkoon fa nekk ay xale yu ndaw kon ñun yàgg na noo bañ Abdoulaye Wade bi muy jël nguur gi boobu ñu wote mais daan nañ bokk ci xale yu dawee Limaamul Laay ba Pikine ñu sunu papa yi ay socialiste leen woon ñëw di ñu menacer pourtant on le faisait que lan parce que daa am lu ñu gëmoon ngëm-ngëm yooyu tey ji leen dugaale ci média maanaam fu ab journaliste mu RTS mën a toog dem di def émission man gis naa ne démb ki présenté journal RTS mais toog di défendre Macky Sall un présentateur de journal lu ne mu yàq ko réseaux kooku bu amee sañ-sañu dem moom en tant que journaliste di défendre Macky Sall mais nan nangu journaliste ci mel ne Pape Alé Niang wala Pape Ndiaye wala keneen ak keneen mais taxaw ne nii ni muy doxe ànduñu ci ñu ci troisième mandat te réew mi ni muy doxe ànduñu ci nan ko nangul ñëpp nit ñu koy waxee ci son ko mais noonu la ko xeexee ci Karim Wade ba mu jural ñu lu ne ñun ñi Khalifa Ababacar Sall la même chose biñ ko fi jàppee chronique buñ mës a def ñàkk ànd ci leen ko tegoon la kon lan bañaloon Laay Wade bañaloon ko Idrissa Seck bañaloon ko Macky sàll mii bañal ko kii di Karim Wade Khalifa mais loolu la bañ ci Ousmane Sonko parce que daf ci am loo xam ne mënuñu ko dundaat mooy. Mamadou Dia li dal Mamadou Dia dugal ko dix ans après mu génn Ablaye Wade bëgg rëg maanaam mu doon ay regret maanaam at mun na ñuy rëccu naan diw pour pourtant diw pourtant diw pourtant conseil constitutionnel bi tey jii mënoon na régler suñu problème parce que man dama koy faral di wax dama ko mos wax sam benn grand yàgg na ma ni ko grand mu na lan ma ni ko est-ce que xam ne politiciens ñëpp ay dof lan ci waxin quoi mun ma lu daa nga wax loolu ma ni ko politiciens lu tax man la ñëpp ay dof lan parce lu ñu bëgg rek lan xam xam na policier moom lu mu bëgg rek mooy nan lay def am mbooloo nan lay def ba falu ci nguur mi opposition du pouvoir loolu lañ bëgg maanaam ki ci kaw garab gi la ak ki ci suufu garab gi kii daa yëg ci kaw bañ a wàcc kii dafa nekk ci suuf bëgg a yëg te nit ki bu dee ay bëgg-bëggam rek lay jiital ci yitteem dof lay doon parce que nit ki dafa war a nekk nit ku mesuré ni ko Serigne Cheikh doon waxee parce que kii di Modibo Keïta ci fédération Sénégal Mali dégg naa. dafa ñëw Senghor di ko tàcc naan ko Gaynde Njaay Gaynde Njaay dégg naa na mbir mi jeex Serigne Cheikh woo Senghor na ko ni kilifa day mesure dalal mun ko lu tax nga ma dalal mun ko yow kii xam ne bàkkam aigle la xam les aigles du Mali ay jaxaay lan maanaam ay picc yi naaw nga naan ko Gaynde Njaay ni nga Gaynde Njaay ba mu fi sax fi ay laaf di la mbëkk bi fédération Mali daanoo mun ko waxoon naa la ko yaa ko jay ndax bàkkam du gaynde nga naan ko Gaynde Njaay loolu tax kilifa day daal te politiciens yi ñu bari ci ñoom loolu la ñuy doxee seen bëgg-bëgg la ñuy jiital ci leneen ba duñ xam fu ñu taxaw muy sonk di président Macky Sall mais ñi war a nite delloo leen ci nite ba duñ taal réew mi ñan la mooy justice bu politiciens yi di dof-doflu mais na justice bi nite maanaam bu justice bi nitee teg lépp ci yoon rek delloo leen ci nite rek ñun ñëpp dina nekk ci jàmm kon damay tëjee kàddu yi Serigne Cheikh ya mooy réew mu amul justice la la fa nit di def te bëgguñu ñu yóbbu ñu ci niveau boobu ñu dem ba ñëpp ñu am sentiment yi amuñu justice maanaam loolu bëgguma ko parce que man dama gëm justice parce que tey jii ku sàccoon sama kalpe wala nga duma ma wala nga teg ma naka sudul noonu ci yoon laa lay yóbbu te ñi naan justice bi yëpp pour ñu nekk candidat justice moo ciy ànd mooy day dem ci conseil constitutionnel kon bañal fii justice nangul ko fii mënta ne on ne peut pas son contraire kon di gërëm ñëpp di leen sant di gërëm El moo Modou Diouf di jégalu bu baax a baax boy ci kaso bi ñi ci mën a bàyyi ñu bàyyi leen dina tax dialogue bi gën a yomb dina tax xol yi gën a féex parce que jàpp gi teewul réew maa ngi yëngu tëj gi teewul réew maa ngi yëngu kon du pexe jàpp tëj duma rey du pexe du pexe ñi ngi rey ñi ngi duma ñi ngi tëj mais lan la changé ñu doon bañ ñi ngi bañ ba tey jii dafa mel na loolu te day xabtal ndaw ñi kon na ñëpp dellu ci dal di gërëm El Hadji Modou Sanjogu Sonybu Top Ablaye ak groupe solution yëpp di ñaan rek suñu borom dolli ñu sutura ak wér waaye tam muccal ñu ca musal ñu waaye te jàmmal ñu bu baax a baax a baax a baax di gërëm Arona ma nga ca marché Savanel ca pikin ah fa janook euh, banque ba yaakaar naa moom moo ñëw ñëw bi di ko ñaanal loxo bi gën a wér di ñaanal ñëpp jàmm kon euh, mi ngi noonu euh, wéy leen di abonné di commentaire mais aussi di seetaan solution info TV.